mbokk mi ci laajam bu njëkk bi dafay laaj ñaari xadis yooyu lan moo leen di boole benn bi dafay wax ne yàlla yónni wut ab yonent lu dul am na ñoom ko booleel ñoo xam ne ñoo koy dimbali ànd ak moom gëm ko ci beneen xadis bi nga xam ne ci la doon waxe ci juróom-ñaar fukk yooyu nga xam ne bu ëllëgee kenn du leen reglenteeg ñoom kenn du leen xisaab ba muy wax ne dañ ko gaaralal xeet yi mu di leen gis nee na am na xeetu yonent boo xam ne day dekki ànd ak mbooloo am ñu dekki ànd ak ñaari nit am yonent bu ñëw àndut ak kenn wa yubaasu nabi wa laysa maahu ahad ñu dekkal ab yonent te fekk kenn àndut ak moom boo settantalee ñaari xadiis yi xamitam diggante yonent yi ak seeni xeet ak seeni xeet da xam ne ñoom bokkuñu bokkuñu ay mission am na yonent boo xam ne yàlla da ko def yonent yónni ko mu dem ca nit ña di woote ji am yonent boo xam ne yàlla def na ko ab yonent waaye yebalu ko ci aw nit muy woote daf ko jox sharia bi yonent bu ko jitu won mu téye ko yor sharia bobu di ci dund motax bo xole ci hadith bobu mu tudde hawari yoon yi dafa ne ma ba'ath allah min nabiyyin fofu fofu rasul la bolé ak nabi ndax yónni la wax fële daf ne wa yubaasu nabi wa laysa maahu ahad ab yonent la wax fofu way tuddul lu jëm ci walu yónni moo tax boroom xam-xam yi ci li ñuy wax ci loolu dañuy wax ne wa yub'asu nabi wa laysa ma'ahu ahad am na ci ñoo xam ne sax dañoo nas suñu ne kooku mooy aadama alayhi salaam ci boppam ndax sun maam aadama yonent la boo xam ne yónni wuñ ko woon muy woote ci ci kenn nit ñoo xam ne dañoo nekkul ci tawxid mu di leen woo ñi ñëw ci tawxid amul woon nit ñëpp ci tawxid lañu nekkoon ba ni yonent yàlla nuux ñëwee shirk am ci la yonent yi door a tàmbalee di woote ci tawxid kon ab yonent buñ naan dafa yor foofa aw xeet ci lu jiitu nuux donte ay yonent amoon nañ waaye yonent bu ànd ak ku xeet woo xam ne dañ naan suñ ko dekkalee day woo mbooloo ma ko gëm ñu topp ci moom yonent bu mel noonu amul woon su fekkee yonent bu mel boo xam ne nag kenn gëmu ko kenn topp ko su dekkee euh, kenn du ànd ak moom ci kaw ne ñii aw xeetam lañ loolu benn wax ci wax yu am solo yoo xam ne boroom xam-xam yi taw jiixe nañ ko ñaari xaddis yooyu ci la bokk waye li ciosan ci lu melni rek modi ñu xamne ñaari hadith suñ bokke wër ñaari xabar yépp day and wër su ko defé nak la ca des li tax borom xam-xam yi di gëstu nan lañuy deppalé ñaar yo xamne dafa melni da am contradiction ci xeli nit ñi li tax ñi aajo wo moy nit ñi man ko dégg ba man cee jariñu waye lu joggé ci yaronte bi alayhi salatu wassalam su wéré na ñaar yépp wër nañ rek contradiction am seen digënté motax loolu mom julit bi da ko wara gëm déparé ko Ah, loolu boroom xam-xam yi wax foofu nag manis na koo dégg moo di yonent boo xam ne dañ koo joxug yonent ba noppi yebaluñ ko ci aw nit bu dekkee du ànd ak kenn waaye koo xam ne dafa àndoon ko nit day ànd ak kenn su ko defee ibra bi liñ ciy jëriñoo foofu la fay des moo di ki nga xam ne dañ ko yebaloon muy woote sonn ci woote bi ba àggal kenn wuy siwu ko lu dul ñaari nit wala ñetti nit doo nga ànd ak moom kooku sa xel mën naa dal yow kat bi ne ñi wuy si su bariwul woon it waroo am looy rëcc wala lu lay naqari ndax am na yonent boo xam ne ñaari nit dong la àndal bi mu dekkee wala ñetti nit dong la àndal ki nga xam ne àndut ak kenn nag kooku duggul ci dugul ci boobu kaadar ndax mel na ne ci kuy jàng siira siyarul anbiya amul benn yonent boo xam ne ci liñ xam yàlla yónni na ko muy woote te fekk kenn kenn kenn gëmu ko mën naa néew lool ba àgg ci ñaar ak benn comme ni mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam waaye ku kenn gëmul nag mooy ka wootewul woon kañ yebalul woon muy xaw ma ndax loolu leer na ci yéenam déet euh, mbokk mi laaj bi mu laaj sànq ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu yéegee ci kaw ba ñépp séen ko mu présenté wu bañ xam ne moom la mu ne leen ndax su ma ne leen woon ab armée moo jóge fii di song dëkk bi ndax ba ngeen ko gëm ñépp ne ko waaw kooku lim ci jublu sallallahu alayhi wa sallam li muy jàngale foofu moo di wootekat bi war naa garder jikkoom axlaaq war naa garder siqatu naas confiance bi dox seen diggante ak moom kenn ku nekk xam na ne moom alayhi salaatu wasalaam ku ñu wóolu woon la ba tudde ko al amin ànd ak loolu téewul bi mu ñëwee ba taxaw war leen a woo ci loo xam ne tey jii lañ ko mas a dégg mësuñu koo dégg lu jiitu loolu téewul mu fàttaliwaat leen moom mooy kan ci seen biir ne leen di man mi may tudd ki ngeen tudde woon amin ñu ne waaw mu ne su ma ne leen woon ab armée ngi ñëw di leen song ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko bu baax a baax a baax mu door leen a wax nag lim leen di wax. su fekkoon ne daa doon koo xam ne ci ay caaxaan lañ ko xam wala ay kaf wala koo xam ne day wax lu amut wala ay jikkoom baaxut wala maar day taali ku ku dëng la su taxawee di wax loolu duñ ko déglu sax wala su waxee ba daaneel ñu ne ko ah yow yow de loo wax mën naa doon ay caaxaan mën naa doon dëgg waaye ñoom ñépp àndandoo ñu ne ko yow loo dëgg la. mu doon leen nag lii laa wax nag mooy woo leen ci woo leen ci tawxid bu sell moo tax kii woote moo xam imaam la moo xam jàngalekat la moo xam kuy yëngu ci diine ji la moo xam sax kuñ xam ci sunna la war naa góor góorgóorlu lépp luy jam personnalité am mu wattandiku ko d'abord ngir yàlla ci boppam moo ci jiitu ndax yéene ji sun borom tabaraka wa taala moo war a tax muy def loolu ñaareel ba digganteem ak doomu aadama yi ak daawa bi mu yore ndax nit mën naa toll foo xam ne ci liggéey bi njuumteem nekkatul njuumtel boppam waaye dafay yóbbaale ay doomu aadama dafay yàq sax daawa bi kon ku mel noonu euh, day yàq daawa bi moo tax ñoo ne zallatul aalim zallatul aalam loolu lañu wax maanaam njuumtel benn boroom xam-xam mën naa doon njuumtel monde bi yëpp faf su fekkee noona la nag kon garde jikko ji fexe ba say wax nga xool li ngay wax lu mu doon mu doon dëgg say jëf nga xool nu mu demee sa jëflanteeg doomu aadama yi seeni alal seeni der seeni moomeel nga maandu ci lu mel noonu mooy doon li nga xam ne mooy li jaadu ci lay demee ba ki doon ab noonam sax nga xam ne da koo bañ amaana bokkul ak moom jubluwaay wala bokkul dara moo tax mu bañ ko lu tee moom dana xam digganteem ak boroomam wala digganteem ak ngegenaayam su fekkee gëmul dara mu xam ne kii kat dëgg la juboowu maak moom bokk nu itam fun jëm waaye xam naa ne kii ku dëggu la li muy wax lu mu gëm la li muy wax daf cee nekk su ci nekkuloon ba te bàyyi na ko wala dem na yoonam bu yàgg yàgg melokaan woowu kuy góorgóorlu ci diine ku ne da ko war a fàggu te wattandiku li nga xam ne mooy dal ñu baree bari <coughs> mooy di góor góorgóorlu ci diine ci côté yépp ci wàllu pas-pas ngay góorgóorlu ci wàllu sunna ak biddaa nga fexe ba kenn du la fekk ci biddaa wala yu mel noonu waaye boo duggee ci jëflanteeg doomu aadama yi ci seeni alal wala seeni moomeel ak yu mel noonu jalgati daal di dugg si lu mel noonu ci boppam nit ki def ko war a wattandiku parce que day yàq day yàq liggéey bi. kii dafay laaj mu ne ñooy chiit yi mooy seen dëgg dëgg dëgg ñoom daal ci ak gàttal ay nit lañ yoo xam ne ab kuréel lañ buy askanoo lislaam boo xam ne juyoo nañ lool ak alquran ak sunna alquran jii yor di ko jàng di ko jaamoo yàlla dañoo gëm ne dafa manqué saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa dañ leen di yéefarloo jàpp nañ ni gannaaw yonent bi ñépp dañoo tubbi ba mu des lim bu néew ñii ne fukk ak ñeent la am ci ñoom ñoo xam dañ ne juróom-ñaar a fa des am ci ñoo xam dañ ne ñeenti nit képp fa des gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa kon sahaba yi dañ leen di ŋàññ dañuy wax ci ñoom wax yu ñaaw tàmbalee ko ci umul muminin aïcha radiallahu taala anha omar ibn alxataab osmaan ibn afan abu bakar siddiq ñi nga xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ña nga àjjana sax bàyyi wuñ leen xeetu wax wu ñaaw bu nekk danañ ko wax kon ci buntub alquran ak ci buntub sahaba yi seen réer gi gën a mag foofu la gën a fese waaye lépp ñu ngi ko teg ci bunt boo xam ne buntu lu ñu tuddee wilaaya la foofu mooy muntalax bi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee kan moo ko waroon a wuutu ñu jàpp ñoom ne Ali ibn Abi Talib moo ko waroon a wuutu nit ña dañ koo tooñ nangu euh, jiite ga suufeel ko def ko nangam lor waa kër yonent bi def leen nangam yu noonu la ñuy tasaare ci nit ñi ba gëmloo leen ko te li ñuy wax ci lu mel noonu dara amu ci dara jegewu cee doon sax dëgg Ali ibn Abi Talib radiallahu taala anhu ak ku ko xam yar bañ ko yar ak fam toll woon ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen saxaaba yi fiñ toll woon xamoon na ne Abu Bakr Siddiq amut lenn lu Aliyun xalaata xëccoo ak moom ndax kii ca mag ña la kii ci te diine lislaam doonul diine joo xam ne diine doon nante ci wàllu askan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne dafa bëgg Ali Abi Talib wóotu ko day wax ne kii na toog sama gannaaw te suñ xoolee li am ci ay si lépp danaa lay wax ne su fekkoon ne am na ku muy wuutal kon Abu Bakar Siddiq lay doon parce que ki nga tëlee ne ku kaay jiite nit ñi ci julli koo koy wax dëgg yàlla loolu doyoon na sëkk man yaakaar naa ñiy wax ne Ali ibn Abi Talib moo fa waroon a toog su fekkoon ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tëlee dane Ali kaay julli kon ñoom danañ gën a mën a am fuñ caar waaye Aliyo ngi fi ñépp a ngi fi mu ne ana Abu Bakar ñu ne mi mu ne kaay jiite as soxna ñëw wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko bis sàngam na nga dellusiwaat mu ne ko su ma la fi fekkul nag ki solo xadiis bi mu ne ka annaha mawt mu ne dafa mel ne ndaw soosu li muy junj mooy waaw su ma la fekkoon nga génn àdduna nag mu ne ko su ma la fi fekkul nag mu ne ko soo ma fi fekkul fekk fi Abubakar loolu dara gën koo leer su fekkone dañuy wax ne texte am na bu naan na ma diw wuutu kon abubakar siddiq radiallahu taala anhu lay doon waaye ànd ak loolu ci maandu teg ahlu sunna ñoom dañuy wax ne texte amut yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa bàyyi mbir mi ak jullit yi ñu tànnal seen bopp ki nga xam ne moo leen war a jiite waaye na ko yàlla bëggee moo di ñu tànn abubakar moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam wa yaba allahu wa rasuluhu illa abubakar yàlla ko yonentam gantu nañ keneen kum mëna doon bam des abu bakr siddiq loola moo tax ndigal la dikk irada charia bi ak irada kawniya bi ni ko sunu borom tabarak wa taala bëgge tam dëppoo ak diine abu bakr siddiq jiite leen ànd ak loolu ñooñu dañoo jàpp ni ñoo ñëpp tubbi nañ ay yéefar lañ ñanga sawara di leen rëbb di wax ci ñoom wax joo xam ne ñaaw la mooy seeni melokaan euh, seenum ngir itam fitna lañ koy tasaaree maanaam fuñ tosaaroo fu nekk ak fuñ bari fu nekk nañ gëme ne saaga ak xaste ci seen diine ci la bokk ci lañ gëm ne tuur deret it pour forcer nit ñi ci seen diine ci la bokk kon ay nit lañ yoo xam ne niti yi fitna lañ yoo xam ne ñu mat a wattandiku lañ ñoo xam ne yàq ñoo leen tax a jóg te sunu réew mii ñu ngi fi tàmbali di tosaaroo